أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci seen dars siira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy histoire yonent bi ñoo ngi tolloon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu demee xeex boobu tudd gazwatul ahzab te ñu gën ko xamee ci xandak xam ngeen ne waxoon nañ nattu yi ci nga xam ne moo ci nekk ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam woote sahaaba yi wuy si ko mu dajale leen ba sahaaba boobu tudd salmaanul farisi xelal ko ne ko comme tey Medina amuñu fi armée boo xam ne mën naa dékku yéeféer yi comme yéeféer yi dañoo dajaloo bëgg a ñëw Medina faagaal jullit yi faagaagal leen rey leen ah ci la salmaanul farisi xelal yonent bi ñu daal di gas kanaal boobu kondir boobu wërale ko Medina nattu yi tar torop xam ngeen ne yéeféer yi bi ñu dajaloo waxoon naa leen ñi leen jiite ci kuréel yi ñan ñoo jiite waa Quraysh banu Qaynuqa ñan ñoo leen jiite ñan ñoo jiite banu Qurayzata banu Nadr ak ñépp ñi nga xam ne bokkoon nañ ci mbooloo moomu ñan ñoo leen jiite woon waaye mbokk jullit yi li gën a rëy li ñu war a jële ci xeex boobu mooy dëggu gi jullit yi dëggu taxaw ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam défendre ko jàppale ko ba keroog yéeféer yi faagaagaluñu waa Médine tolloon nañ bi ñu gasee pax mi ba yéeféer yi yegsi am na ci benn yéeféer bu saay-saay bu tudd amr ibnu abdi wadd moom tëb na rek cëppeeluñ ci biir pax mi di wane njàmbaareem di wane ñemeem daan ne jullit yi ku ma ñeme rek fekk si ma fii ma fii ma dugg ci la Seydina Ali karamallahu wajha radiyallahu anhu wa ardaahu cëppeelu ci biir pax mi daal di koy fekki ñoom ñaar ñu jàkkaarloo aliyin daal di dagg baat bi waaye xam ngeen ne ca biir pax ma am na kenn ca yéeféer yi ku ci daan woon muy nawfal moom tamit noonu la ko Saad ibnu Muaz daa di reyee waaye keroog mbir mi tar na trop ci kaw jullit yi ndax naafiq yi dañ cee bëri woon naafiq yi ñu ngi woon ci biir jullit ñi sonal jullit yi lool ba tax na sax alxuraan di ñu nettali ci saar boobu nga xam ne moom mooy ahzab les coalisés alquran di ñu nettali ne gaa yi ñu ngi doon wax ne maa waadana allahu wa rasuluhu illa gurura yàlla ko yonentam day liñ ñu digoon yépp neen la caaxaan la ndax ñëw nañ ba fii li ñu yàlla ko yonent waxoon ay neen la ay caaxaan la ndeke yàlla ko yonent dañuy naxe xoolal ay jullit yuy wax lii lii moo lay won ne dañoo nekk ci biir jullit ñi di tuddoo jullit waaye ay naafiq lañ waaye ñeneen ña tamit ci biir naafiq yi ba tey am na beneen mbooloo boo xam ni ñoom dañ doon wax ne inna buyutana awra naxaafu an yugayyira alayha al aduwu ñun de sunuy kër amuñu ay bunt ku war a dem xeexi naan sama kër du tëju sama buntu kër du tëju wala sama buntu néeg du tëju loolu mooy bëggoo dem te xamoo ni ngay def ba toog kon foog nga créer ay mbir yoo xamante ne moo lay gàllankoor moom ngay joxe ngant ne mënoo dem kon mbokk jullit yi mbir yi wastaddal xaalu bil muslimina mbir mi daal nay tar ci kaw jullit yi metti torop lool mbir mi metti ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax moom amul ñu dul jullit yi waaye moom yonent bi mbir mi li muy tar tar tar ci kawam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi koy defal ay pexe yu mu génnee ci mbir mi nga xam ne gars yi dañoo coaliser ñëw wër Madina bëgg a faagaagal jullit yi ci kaw suuf xam ngeen ne xeex am na luñ ci jàngale mooy xeex wore dagan na ci alxarbu xidaa xeex wor dagan na ci dagan na ngay xeex ak kenn mu ne la loyor nga ni ko bantu bale fekk yaa ngi yor kuurug roof la ngay xeex ak kenn nga ni ko looyor mu ne la looyor nga ni ko jaasi fekk kalashnikov nga yor parce que ki ngay xeexal mu xam say arme yu ko raw lay jël mbokk yi am na fa benn waay bu tudd Nuaym ibnu Mas'ud al Ashja'i moom jullit la woon ku gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko nëbb waa Quraysh ba mu xoolee situation bi tar torop ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent mu ne ko ah mu ne ko xam nga ne man jullit laa te bi may tuub inni aslamtu wa qawmi laa yaalamuuna bi islaami man ba may tuub xam nga ne samay mbokk xamuñu ne man tuub naa yonent bi ne ko wax nga dëgg mu ne xam nga ne man xarit laa ci yahud yi nga dëkkal fii muy Ghatfaan yonent bi ne ko wax nga dëgg mu ne ko dama bëgg ñu tëral pexe man ak yow ma dem fa wax ak ñoom yonent bi daal di koy jox ndigal ne ko demal boo demee nga wax ak ñoom mu daal di ñëw moom Nuaym ci yahudi Ghatfaan mu ne leen man dey dama ñëw fii yéen xam ngeen ne samay xarit ngeen yéen waa Ghatfaan ñu ne ko waaw mu ne taarifuna wuddi lakum wa xawfi alaykum xam ngeen sama sopp gi ma leen sopp waaye xam ngeen ragal gi ma ragal musiba dal ci seen kaw ñu ne ko dëgg la mu ne leen wa inni muhaddisukum hadisan faktumuhu anni maa ngi leen di waxal wax joo xam ne dama bëgg ngeen nëbb ko bu mu jëm kaw man ak yéen rek bu ko keneen yëg qaalu naam ñu ne ko waaw waaw waxal mu ne laqad ra'aytum ma waqaa li bani qaynuqa wa nadir min ijlaihim wa axzi amwalihim wa diyaarihim mu ne gis ngeen ñaari famille ngi nii xam ngeen la leen dal te ñooñu seeni mbokk lañu yéen ñii gis ngeen bani qaynuqa la leen dal gis ngeen banu nadir ñuy ay yahud ñaari famille lu leen dal ndax yonent bi leen fekk Medina génne leen nangu seeni kër nangu seeni alal te Quraysh mi ngeen àndal ak Ghatfaan ñooñu ñoog yéen yemuñu ndax ñooñu dëkku ñoog yonent bi fële lañ nekk distance dox na fi te yéen ñi nag da ngeen a dëkk ak yonent bi moo bu ngeen xeexee ak yonent bi ñee ñibbi baleen feeg yonent bi yéen fu ngeen jëm fu ngeen jëm ah gars yi ne ko wax nga dëgg de waa màkk bu ñu ñibbee ak ña ñu àndaloon yéen ñi fi des fu ngeen jëm ñu ne ko nu ñuy def mun a génn leen ci xeex bi ñooñu daal di génn dajale seeni mbooloo daal di toog kon mbooloo yi commencé nañu wàññeeku kon waa ji pexeem am na njëriñ mu daal di départ moom waa ji utali ji waa màkk ak ña ñu àndal ñoom it mu yegsi ci ñoom ne leen antum taarifuna wuddi lakum wa mahabbati iyakum wa inni muhaddisukum hadisan faktumuhu anni yéen day waa màkk yéen waa quraysh xam ngeen man mii ni ma leen bëggee xam ngeen sopp gi ma leen sopp maa ngi wax ak yéen wax joo xam ne nëbbal leen ma ko bu ko kenn yëg ñu ne ko def nañ loolu mu ne xam ngeen bani quraysata qad nadimu ala ma faalu ma muhammad wa xaafu minkum xam ngeen ne banu quraysata ñoom rëccu nañ la ñu defoon ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëccu nañ la ñu génnoon ne dañuy xeexi aa ñoom de dellu nañ ñoom banu quraysata ñoom bàyyi nañ leen fii yéen ngeen toog waa léegi yéen ñi ayurdikum an naaxuza jamian min ashrafihim wa nutihi lakum wa taruddu janaahana azikri mu ne ndax da ngeen a bëgg ñu jàpp seeni sang daf leen di jaam jox leen banu quraysata yéen ngeen dellu daal di torox ndax da ngeen a bëgg loolu loolu ngeen bëgg ah ñu ne ko wax nga dëgg ñu ne bëgguñu loolu kon nag lu ñuy def kon dem leen ngeen ñibbi dellu leen waaye waa ji topp na leen seen mbooloo yooyu di leen jaxase seen biir ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal leen ñaanam gu mag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax mbir mi xam ngeen ne dafa toroon ci moom lool mu yëkkati yàlla ay loxoom daan ne ko allahuma munazzilu lkitab sariu lxisaab ahzami l ahzaab allahuma ahzimhum wansurna alayhim yow yàlla de yow yaa wàcce téere yi yow yaa ga yow yàlla yaa gaaw ni ngay àtte jaam ñi yow yàlla yaa dajale mbooloo yi tey ñu ñëw bëgg ñu song yow yàlla yal na nga def ñu noot leen yow yàlla yal na nga def ñu gañe leen yow yàlla yal na ñu dimbali ci seen kaw ñaan bi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanoon keroog ba mbooloo yi songee Medine soo demee ci téere bu tudd xisnul muslim ñaan bi yonent bi sunnaal na ko saa yooy dajeek mbooloo nga jàng ñaan bi saa yooy dajeek mbooloo yonent bi sunnaal na ci yow ñaan bi nga jàng ko ñu ne ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanee ñaan gi ajaaba allahu du'aahu alayhi salaatu wasalaam yàlla daan nay nangu ñaanam fa arsala ala al aada rihan baaridan fi laylatin muslima yàlla subhaanahu wa taala yónni seen kaw ñoom noon yooyu waa qurays ak yahud ya ñu àndaloon ak seeni mbokk ak bokkaalekat ya yàlla yónnee leen ngelaw lu sedd lu tar loo xam ne ci guddi gu lëndëm yàlla jaxase leen naawal seeni tànt dagg fasu gëléem yaak fasi ak buumi fas yaak buumi gëléem ya mbaar yi naaw pënd bi jaxasoo seen kaw ba kenn xàmmeetul seen moro sa moroom noonu lañu dawee daldi ñibbi fa qaala alayhi salatu wasalaam yonent bi alayhi salatu wasalaam bigal sahaaba yi ndax yàlla subhanahu wa taala nangu na ñaanam ci seen kaw xam ngeen ne xare boobu yàlla subhanahu wa taala wàcce na ci alquran ci saar boobu tudd ahzab aaya 9 ba aaya 13 borom bi subhanahu wa taala ne ya ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm yàlla uskuru ni'matallahi alaykum fàttaliku leen xéewal bu leen yàlla defal yéen ñi gëm fàttaliku leen xéewal goo xam ne borom bi subhanahu wa taala defal na leen ko keroog ba nga xam ne is jaatkum junudan keroog ba nga xam ne ay soldaar song nañ leen armée song na leen farsalna alayhim rihan man yàlla ma yónni ci kaw soldaar yooyu ngelaw yemuma rek ci yónnee leen ngelaw waaye wa junuudan lam tarawha boole naa ca ngelaw la ay soldaar yoo xam ne armée boo xam ne yéen gisu leen armée boobu fa kaana allahu bima taamaluuna basir borom bi subhanahu wa taala mu ne wa kaana allahu yàlla dañul bima taamaluna basir di gis seeni jëf lépp lu ngeen def rek yàlla teg ci gisam borom bi wax ci aaya 10 mu ne is jaa'ukum min fawqikum wa min asfala minkum fàttaliku leen keroog ba nga xam ne soldaar yooyu nekkoon seeni noon ñëw nañ ci seen kaw ñi jaar ci suuf bu doon tey la nga ni ñi nekk nañ ci jaww ji nekk armée de l'air ñi nekk armée de terre nekk ci suuf min fawqikum wa min asfala minkum ñi nekk ci kaw ñi nekk ci suuf borom bi nee na keroog julli di tiit nañ way zaagatil absaaru ba xulli seeni bët keroog koo gis bëtam yaa ngi weex tal ba doo gis lu ñuul yi ndax tiitaange wa balagatil qulubul hanajir borom bi nee na keroog jullit ñi tiit nañ ba seeni xol daanaka mu ngi ci seeni put mën nga ne ku ci ŋaang rek xolam génn ndax tiitaange bët yël xulleeku na xol yi tëb na mu ngi tëf tëfi ba nga ne mi ngi waaj a yegg sax ca put ya am na ci ñoom ñoo xam ne sax dem nañ keroog yàllaa ko nettali ne wa tazunnuuna billahi zunuuna dem nañ bay ñaaw njortu ci yàlla ñi naan ndax yàlla la mu leen digoon ndax dëgg la ñi naan ndax yàlla am na ñi ku nekk rek mooy li ma leen waxoon sànq ci mbooloo mi nga xam ne raxoon nañ jullit yi muy naafiq yi ñuy ñaaw njortu ci yàlla yàlla mu ne hunaalika tuliyal muminuuna foofu la yàlla nattoo jaamam yi yàlla nattu leen natt bu metti wa zulzilu zilzalan shadida yàlla nee na ma indi ñoom ñëpp ñu trembale ma def leen ñu trembale ñoom ñëpp ñu ngay lox seeni bët buqeeku na xool yaa ngay tëf-tëfi tiit nañ naafiq yi sax ñoom ñu ngay wax ñi nga xam ne seen xol yi feebara ci nekk naan maa waadana allahu wa rasuluhu illa gurura is yaqulu almunafiquuna والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا yàlla nee na keroog ñi raxoon julli ñi nekk ay naafiq ak ñi nga xam ne seen xol yi dañoo feebar feebaru manque ngëm feebaru sikki sàkk feebaru naafiq ñu ngi naan yàllaa ko yonent day diguñu woon lu dul ay wor am na ci ñoo xam ne sax ñoom aya 12 yamuñ ci rek jaxase waaye benn mbooloo ci ñoom ñu nga naan yaa ahla yasrib la muqaama lakum farji'u yéen waa yasrib yéen waa medina tey ngeen dee sax waaye amatu leen bu yeboo ngeen dellu xam ne tey gars yi dañ leen di gañe gars yi dañ leen rey génne leen medine am na beneen mbooloo boo xam ne ba tey ci naafiq yi ñu ngay dàggu yonent bi naan ko ñun mënuñoo xeexi ndax sunuy buntu kër du tëju suñuy néeg du tëju wala bàyyi ñu kenn suñu kër ay xale doo nga fa rek ak ay jigéen ngir lànk bañ a xeexi gis ngeen keroog lii moo taxoon jullit yi am ay jafe-jafe kon mbokk yi lii lenn la ci ngeen gis yonente alayhi salaatu wasalaam lu mu daj moom ak ay àndandoom yi sahabatul kiram li ñu daj ci yéeféer yi ñu doon dundal mu yéeféer yi màkka waa quraysh la ñu daj ca yahud yi ñu doon dundal banu qurayzata banu qaynuqa banu nadir waaye la ñu daj ca biir madinatul munawwar ci ay naafiq yu tudde seen bopp ay jullit nekk ci biir jullit yi yàq kon mbokk yi yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam day ñetti mbooloo ñetti groupe ñoo ko doon xeex ñi ay bokkaalekat lañ ñooy waa quraysh ñi ay yahud lañ mooy banu qaynuqa banu qurayzat ak banu nadir ñi ay naafiq lañ ñu mu dëkkal ci biir dëkk bi nekk ay jullit tudde seen bopp ay jullit mu nekk ñetti mbooloo julli ñu tuuti bay bëgg dee waaye ànd ak seen borom subhanahu wa taala mu leen di kàttanal di leen may doole kon incha allah dars bii di ñëwaat résultat yi génne ci xeex boobu la ñuy jël ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala kon lii moo doon dars tey bi ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.